وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di jiital vidéo bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma di ko ñaanal suñu borom sàmm ko te aar ko dëgg-dëgg kattanal ko ba li nga xam ne yéen a ko lëggee islam bi yéen a ko lëggee yéen noonu ak yoonu murid loolu suñu borom jàppandal ko bu ko defee di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci dëkk bi tàmbale ko ci imam ak ki nga xam ne moom mooy chef de village bi waaye di nuyu seen bopp bu yi nga xam ne yàlla def na moom lañ àndal te suñu teew ci jataay bi ak ci barab bi moom moo ko taw ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fi teew. di ñaan yàlla suñu borom kàddu yi nga xam ne moom la ci yëkkati di kàddu xam ne kàddu yi njariñ lay doon lu jëju ñu xam ne ci yàlla suñu borom la lu jëjël xam ne ci matati doomu aadama waaye it di leen siyaare ci weeru koor i nga xam ne ci la barke di weeru yërmaane di weeru njéggal di weeru goreel ci sawara di weeru alquranul karim di xam ne sëriñ bu mag bi fonkoon na ko ba bind lu bëree bëri ci ay xasaayid bokk na ja yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bil adadi bokk na ja yaa dal busharati bil ayaati wa suwari bokk na ja faaza alladina xaafadu ala siyaam shahrin bihi uxliqa baabun al iyaam waaye wax yi ay may yoo xam ne borom defoon na ko ci weer koor te loolu boo delloo ci xasida bu mel ni ki wa kaana xaqan da nga ko fekk mu wax lu bëree bëri bu ko defee kon ñu ngi leen di ziar bu baax a baax weer bi nga xam ne nag moom lañuy waxtaane waxtaanee kenn di ko sëñ ko boo waxee léegi mooy jàmm jàmm jàmm solo si nga xam ne am na ko ci jàngaleem sëñ maanaam jàmm ci boppam solo si mu am ci jàngaleem sëñ bu ñu ne jàngaleem bi la mooy loo xam ne daf koo digal boppam wala bokk mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom mu yaram leen boppam ñu waxe noona wala ñu jëfe wala ñu binde noona te loolu lépp di delluwaat bi xam ne moom mooy xalaat yu sëriñ bi ak kon jàmm jooju moom lañ bëgg a wax am ngeen ne tomb la na solo ci barab jamono bi nekk waaye rawatina ci jamono bi ñu nekk ndax mooy li xam ne boo ko nit ki ñàkkee ak lu man di am day mel ni ki dara waaye bu ko amee manees naa wax ne am na lépp nit ki lépp lu man di am ci àdduna bu fekkee amul jàmm yi mooy li nga xam ne bu ko nit ki amul manees naa wax ne du dara nekk du dara la nit li nga xam ne moom lay def di ci am bànneex manees naa wax ne bu fekkee amul jàmm bu ñàkkee jàmm loola muy def di ci am bànneex wala mu di jëfandikoo di bànneex bànneex boobu dootul jàmm bu ma ko war jàmm it xam ne bépp askan wala bépp réew moo xam ne dafa am yokkute ñu tuddee développement moo xam développement la ci wàllu koom-koom ñu naan ko développement économique wala dafa nekk loo xam ne ci wàllu nekkinu askan bi la ñu social wala mu nekk lu aju ci wàllu yar ak jàng ñu naan développement éducatif wala mu nekk loo xam ne ci wàllu aada ak cosaan dañu mën ko tuddee développement loolu lépp ngir mu mën a am ci am réew day fekk réew moom wala askan booba jàmm dafa nekk bu fa jàmm loolu lépp mu loolu li ciy am na ay réew yoo xam ne réew yu amoon doole lañ ci àdduna bi ñu doon leen dudd ci seen wàllu développement ak seen wàllu prospérité seen wàllu yokkute waaye réew yooyu yëpp ba manees naa wax te lépp dañ koo ñàkk mën nañ ci réew mu mel ne ki Irak mën nañ ci réew mu mel ni ki Libye kon jàmm manees naa wax ne mooy développement bu jàmm comme développement bu nga am fii ak beneen bi di tax mu war a waxtaane tomb bu mel nii mooy xam ngeen ne mbokk yi suñu réew ci Sénégal boo ñu jàngatee ci ñeenti at yi jàll dund nañ fii ay xew-xew yoo xam ne si dafa aju ci wàllu ay conflit yoo xam ne manees naa wax ne day conflit la yu ci wàllu politique ba am yu baree bari yoo xam ne dugg na ko mu amaale sax léeg-léeg ay xëccoo yoo xam ne sax dafay laaj ci wàllu pas-pas ci diggante ay kuréel yoo xam ne dañuy aju ci wàllu diine te loolu ku dem ci réseaux sociaux yi da nga yëg ne loolu xaw na faa fes lool doonte ci jamono ji gis nañ ne lu ci waaye dem na ba sax nag indi lu ñu tuddee ay xëccoo ñu naan ay conflit ethnique nga xam ne loolu Sénégal mosu ko xam liñ mosoon xam mooy lu aju ci kal mooy pël yi ak séeréer yi di kalante naka noonu joolaa yeeg séeréer yi di kalante naka noonu it ñaŋ ak faal ak mbàkkeel busaak yooyu yëpp di kalante waaye dañu demoon ba jëm jamono mu mel ni loolu dafa am luy ñëw di ko menace di ko ko loolu nag yooyu yëpp. manees naa wax ne dafay waral ñu mën a waxtaane tomb ñu mën a xam xam dañu war a mën a teg suñu kàddu xam ne tomb bu xam ne bu jar a waxtaane la bu defee nag ñu bokk ko jàngat ci ni nga xam ne noonu la wax jàmm ci boppam solo si nga xam ne am na ko ci biir alquran al karim bu ñu jógee ci loolu jooju bu ñu xamee solo si nga xam ne alquran bi na léegi yan mbir mooy yi nga xam ne moom lañ mën a def ngir mën a jëmmal jàmm jooju ak mbir yooyu leen ku ci bu mag bi naka la ca bind ak naka la ca doxee ko defee ci bi jàmm jooju ci boppam sëriñ bu mag bi naka la ko jëflanteeg ñi nga xam ni si ñoom la seqaloon réew mi ak ñenn ci ay njabootam ñi nga xam ni si ñoom lañ ko bu ko defee. bu ñu delloo ci alquran al karim bopp yi danañ gis lu bëree bëri ci ay ayat yoo xam ne su daf ñuy leeral jàmm solo soo xam diine ji nekk di diine lislaam nga xam ne su borom ne ne képp koo xam ne da ngaa sàq beneen diine bu dul diine lislaam nga jaamoo ja du ma ko nangu bi ëllëg da di ci ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين diine ji nga xam ne mooy diine lislaam bokk na ci tur yi ko yàlla jox mooy turu jàmm mooy assilmu wala assalmu wa in janaxu lissalmi fajnax laha wa tawakkal ala allah moo tax suñu borom bi muy wax ne da ngeen jël lépp ci sharia lépp diine lépp alquran lépp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te la mu digle bàyyi la mu tere ba muy wax loolu ci lislaam dafa jubóo jëfandikoo baatu jàmm yaa ayyuha alladina amanu duxulu fi silmi kaafa wala tattabiu xutuwaati shaytan innahu lakum aduwwun mubin kon baatu silmu la jëfandikoo wala sàmm te baat boobu mooy jàmm te mi ngi ci lislaam beneen aaya yi ni boo xam ne dafay wane jàmm solo soo xam ne am na ko su borom bi mi nettali waa aljana lañuy am ci ay xeewal ci ay xeetu lekk ak ay xeetu naan waaye lañuy am ci ay xeetu soxna yu taaru ak seen borom kër waaye seen këdduwaay ya nga xam ne dafa taaru dafa noppale lool suñu dana am kàddu bu jàmm koo xam ne mooy bàyyi ko ci seen borom bi ndax mbokk yi nit ki bu lekk li gën a neex di naan li gën a neex lenn lu ci nekk la te gën a neex ñu ko jëfandikoo te fekk amul jàmm manees naa wax ne ban neexam loola wala neexaayu loolu du koy moo tax su borom ne inna ashaabal jannati l-yawma fii shughulin faakihuun hum wa azwaajuhum fii zilaalin alaa l-araa'iki muttaki'uun lahum fiihaa faakihatun wa lahum maa yadda'uun salaamun qawlan min rabbin rahiim mooy am na kàddu jàmm koo xam ne mooy bàyyi ko ci seen borom bi beneen aaya yi boo xam ne dafay wane solo soo xam ne jàmm amul suñu borom nee na ëllëg waa aljana ci boppam bu ñuy nuyoo ci seen biir ñoom waa aljana nee na kàddu jàmm la ñuy nuyoo muy salaam waaye bu ñuy nuyoo seen borom kàddu jàmm la ñuy jëfandikoo muy salaam taxiyatuhum yawma yalqawnahu salaam wa aadda lahum ajran karima keneen fa mu ne inna alladina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anhar da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam tahiyyatuhum fiha salam mooy seen nuyoo kon nuyoo jàpp lay moo tax ñun jullit ñi bu ñuy nuyoo dañu naan assalaamu aleykum wa rahmatullah mooy jàmm yàlla ak yërmaande yàlla nekk ci yéen benn aaya bi nga xam ne dafay tegtale jàmm ji nga xam ne alquran jox na ko itte jox na solo mooy yàlla su borom nee na ñi nga xam ne ñooy waa aljana bu ñu leen jiitalee ba ñu bu ñu ñëwee ba ca buntu aljana na dañu fay fekk ay malaaka yoo xam ne lañ leen di dalale mooy lan mooy jàmm nekk na ci mooy yéen a mucc ngeen ci lépp loo xam ne mooy lu ñu sib ak lu ñuy ragal ak fin mooy la mu ne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 mooy yàlla suñu borom dafa wax ne yoon wii ma rëdd di lislaam moo yoon njub te it teqantal naa aaya yi samay kiimtaan ñi nga xam ne dañuy fàttaliku am dañuy xalaat daal di wax ñi nga xam ne ñoo jaar ak di xalaat ci kiimtaan yi suñu ñooñu dinaa leen tàbbal àjjana foofu bi muy wax àjjana def ne daaru salaam mooy kër ak jàmm nga xam ne kon bokk na ci tur nga xam ne yàlla suñu borom daf ko jox àjjana mooy kër ak وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون kon daaru salaam mooy këru jàmm moo tax sëriñ bu mag bi dëkk bi mu njëkk a sànni ci kaw suuf nan la ko tuddee daaru salaam mooy këru jàmm te dëkk boobu moo Tuubaa ñooy ñaari dëkk yi nga xam ne sëñ bu mag bi nee na ñoo ko gënaloon ci kaw sëñ Basiru wax na ci minan bi sëñ bi nee na li tax Touba ak Daaru Salaam mu gën leen a sopp ci mboolem pàcc yi mooy nee na sos sañ gi mu leen sañ nee na yéene ji dafa ndax nee na sëñ bi ko mu dem sañ ci ab dëkk ne ay maamam dañ faa jaaroon dañ faa dëkkoon waaye nee na sëñ bi ko pour des raisons économiques nit dafa bëgg a bay wala dafa bëgg a ndax léeg-léeg nit dem sañ ci ngir daa bëgg a bay wala daa bëgg a sàmm waaye nee na dama koo sañ bi mu a sañ ci nag ci kaw Daaru Salaam moo ci jamono joo xam ne réew mi bari woon na fitna yenn buur yi di attaqué yenn askan yi sëriñ bi ci jëm bi boppam it ñu ko doon tuumaal ne moom ci boppam dafa bëgg a jëfandikoo ay ngànnaay ngir dal ci kaw ba moo tax dëkk boobu bu ngeen seetloo sëriñ bu mag bi bi nekk ci tukki bi bari woon na lu mu daan ñaan boromam ne ko nan ma delloo daaru salaam ilahi ila daari salaam illati biha unaajika utni ajila fafini xam waaye léeg-léeg sax mu ñaanal njaboot ñi nekk ne yow yàlla da nga leen defar bi sax ijal salamatan tadumu ya salaam liya wa lil iyaali fi daari salaam léeg min watani daari salaam fa ruddani laha muaafan ya salaam نقلتني منها لأجل تربية يا خير رب ولأجل ترقية وكملت تربيتي فرقني فردني لها أينما ديرو دارسا وما كرتني kon loolu day tegtale kon ne dëkk bi njëkk a sàcc ci kaw foofu rek Daaru Salaam moo ko tuddee te Daaru Salaam dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy turu àjjana beneen aaya yi boo xam ne suñu borom wax na ko di wane jàmm solo su mu am yàlla suñu bi mu nettali ci ahlul kitaab bu yahuud yi nga xam ne dañoo gëmoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax seen dafa wax ne ñoom tey bu ñu ay caaxaan dañ koy wan ginnaaw waaye ñi nga xam ne ànduñu ñoom dañ naan leen yéen ak li ngeen nekk ñun ak ñi nekk waaye jàmm yàlla la suñu diggante wa ida samiu lahu wa aradu anhu wa qaalu lana amaluna wa lakum amalukum salaamun aleykum laa nabtaghi jaahiliin mooy dem leen ñu dem moom baatu salaam la jëfandikoo muy baatu ñëw beneen aaya mooy suñu boroom daa wax ci alquran ne jàmm xéewal maanaam askan bu yàlla defal jàmm mooy askan moom yàlla defal te leen waaye askan bépp koo xam ne fitna dafa am mën nañoo wax ne ñooñu mbugal ci boppam nekk fii bu ñu xoolee suñu réew bi Sénégal ci at yi jàll am na ay jamono yoo xam ne teere si ay bis am na yoo xam ne am na ñu war a dem ci seen liggéey liggéey naka noonu léeg transport ba dafay daal di taxaw dem ba ak dikk ba dootul dootul demee noonu la ko waral mooy lan mooy fitna daal jóg ñàkk jàmm ba jóg moo tax suñu borom di wax ci alquran ne wazkuru alaykum iz kuntum a'daan fa allafa bayna qulubikum wa kuntum ala shafa hufratin a annar fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min annar fa anqazakum minha yàlla nee na na ngeen fàttaliku sama xéewal bi ma defal leen jàmm seen ay xol nekk benn te fekk yéen da ngeen a nekkoon ci bindam sawara ma xeet di leen bindam sawara boobu mooy lan mooy fitna ci nga xam ne ci waaye mbokk yi jàmm bu amut du ñu dala jaamu yàlla jaamu yàlla ngir ko mën a am day fekk jàmm moo tax ku yàlla defal sécurité muy kaaraange stabilité muy ak dal waaye defal na lu ñu tuddee autosuffisance alimentaire mooy nga am looyu dundee loolu la yàlla defaloon waa Makka bi mu leen ko defalee nag daf ne comme naa leen nii muy sécurité am ngeen jàmm yéen a ngi dund loo xam ne sax la ngeen di jëfandikoo ci lekk du ngeen ko bay waaye fu mu ñoree ci àdduna dafay ñëw fu mu dee ilayhi samaraatu kulli shay awalam nu makkin lahum xaraman amina tutbe wala tutba ilayhi samaratu kulli shay ndax ne kon bu boobaa da ngeen ma jaamu loolu lan ngay jàngate kon mooy jaamu yàlla ngir mu mën a am jaamu lay am bu fitna amee jaamu yàlla moo tax su borom ne li ilaafi Quraysh ilaafihim rihlata shitaai wa sayf falyabudu rabba hada albayt allazi at'amahum min juuin wa aamanahum min xawf mooy da ngeen ko jaamu ndax moo leen defal seen fi ngeen defal leen ngeen moom koy fi ñu ciy jeexale foofu mooy mbokk yi yàlla bu nammee buggal aw xeet da leen di xaj jàmm yàlla su borom joxe na benn askan wala benn groupe boo xam ne nee na dama leen defaloon sécurité bu kaaraange waaye ma defal leen dund boo xam ne dund bu doy la waaye bi ma weddee man yàlla muy bañ maa sant nee sécurité boobu muy kaaraange boobu dama leen a indi lu ñu tuddee fi mu ne léegi muy insécurité bu ñu ñàkk kaaraange dund bi ma leen defaloon nga xam ne dañoo am lu ñuy dundee lu ñu xiif nee na loolu ma wettee leen ko defal seen xiif wa daraba allahu masalan qaryatan kaanat aaminatan mutma'inna ya'tihaa rizquhaa ragadan fa kafarat bi an'amillah fa adaqaha allahu libaasa al-juu'i wal-khawfi bimaa kaanu yasna'uun mbokk yi kon bu ñu jàngatee aaya yi ak yeneen yu ni mel ci alquran dañuy gis ne kon yàlla suñu borom jox na solo su mag a lii nga xam ne mooy jàpp ci alquran léegi jàpp jooju nag comme ko xam nañ solo si mu am léegi naka lañ war a mën a def ngir jëmmal ak leen mu ci nekk sëriñ bu mag bi naka ngir jàmm mën mooy ñu xamante xam ngeen yàlla suñu borom ni mu bindee askan yi dafa def lu ñu tuddee ak wutale mooy li ñu tuddee diversité mooy daf ñoo wutale ci suñuy làkk mooy li ñu tuddee diversité linguistique waaye daf ñoo wutale sax nag ci ni ñu dëkkee ci adduna bi ñu naan ko diversité géographique ñii ay Pël lañ ñii ay séeréer lañ ñii ay joolaa lañ ñii nangam lañ ñii nangam lañ suñuy làkk dafa wute waaye naka noonu suñu ay aada ak suñu ay cosaan dafa wute ñu naan ko diversité waaye loolu. warul mën a nekk loo xam ne dafa war a mën a jur fitna a mën a jur li nga xam ne mooy jàmm ak ak mottal ndax yàlla wuute gi mu doomu aadama kenn ku ci nekk am na loo xam ne moom nga amee loo xam ne sa morom da koo ne yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsaa wa jaalnaakum shuuban boobu mooy lan mooy nañu xamante xamante bu amee. jokkaloo day a mooy relation relation bu amee bu boobaa jariñante dafay kon diversité muy wuute ci ay làkk wuute ci ay aada ak cosaan warul mën a nekk lu ñu tuddee source de conflit muy li mën a ñu fitna waaye dafa war a mën a nekk source de complicité wala complémentarité boo xam ne day tax mu mën a nekk benn ñu mën a mottalante dund daa jàpp ne ñëpp njabootam moo tax daa dem boo xam ne sax fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaaha illa képp ku ngeen gis gémmiñam di génne baatam laa ilaaha illallah rek bu leen ko def am kon moom dafa jàpp ne ñëpp njabootam loolu mooy defaree ay diggal beneen bi ci li nga xam ne moom mooy tax jàmm am mooy atasabbur fil axbaar tasabbur fil axbaar mooy lan mooy bu ñu leen indee ab xibaar ak information information boobu na nga ko certifié maanaam na nga ko wóorlu est ce que li nga indil. xibaar la boo xam ne bu wér la mbokk yi bari na lu tàkk ci àdduna bi ci ay fitna te li ko mooy dañoo joxe xibaar bu moo tax li ñu tuddee média maanaam lu am solo la ci néew naa tax réew mu am jàmm waaye mën naa tax réew mu ñàkk jàmm média mooy fexe luy dalal am réew waaye rôlam bu daal am réew léeg-léeg nag bu ñu xoolee ñun suñu réew lu ci ëpp suñ média yi gis ñoo xam ne dañuy yàkkamtee tas ab xibaar ndax dañuy yàkkamti bi mën naa ko njëkk a jottali moo tax xibaar yooyu léeg-léeg rawatina muy génn dem naa jur lu baree bari ay film moo tax yàlla suñu borom ne yaa ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fatabayyanu an tusibu qawman bi jahala léeg-léeg am mbokk sax mën naa yàqu te mbokk bala ko yàq mooy lan mooy dañ laa a ab xibaar ci sa mbokk yow nga sukkandiku ci nit la wax am loo jàppal ko te wax dëgg yàlla mën naa am la ma na ko wax loo ko wóolu wóolu yow da a gëstu loolu mu demee xataa boo demoon nga xam nam demee sax bu boobaa yow da ngaa a dem ca sa mbokk moom nga doog a waxtaan ak moom waaye waroo wëlbati ko yàq am a deram ci loo xam ne léew la wala nga am loo xam ne jàppal ci xam ne amu ca xool ci dafa am benn picc bu ñu wax boobu mu xam ne ñanaaw yi def boo xam naa man dafa tay wóot wóot dafa ñëw ci Suleymaan fekk Suleymaan bi ko gëstoo ci biir ay soldat ak gisu mu tëgg ko bi Hudhud ñëwee ne ko laqad ji'tuka bi sabarin bi naba'in yaqin man day saba laa def muy ca Yemen waaye indil naa la fa xibaar boo xam ne xibaar bu leer xibaar bi mooy lan daf ne ko inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fa saddahum 'ani s-sabili fa hum la yahtadun man daal dëkk ba ma demoon di sabar dama fekk beneen jiite jigéen te jigéen jooju yàlla jox ma ko lépp loo xam ne mooy taaral am ngóor mooy tax am ngóor am boole te am na benn turam bu mag boo xam daal nangu mel ci taar ak nangu mel ci rafetaay jàpp yéemu daane la ca gën doy waar waaye dama ko fekk moom xam-xam ni tam ñuy jaamu jàpp ñoom waaye jaamu yàlla tey jaamu gis nga xibaar boobu bi mu ko indilee Souleymane Souleymane avant muy def benn réaction lan la wax a sadaqta am ndax dëgg li nga wax dëgg la wala li nga wax dëgg kon mbokk yi ngir am réew am jàmm wala ngir jàmm ñu mën koo amal bokk na ci mooy xibaar yi ñuy indi nañ koy leer mbokk yi léeg-léeg ngay dem ci sa mbokk di ci moom loo xam ne luñ lay nekk nii dong la dara wóorul ngay wëlbati ko jataay boo de di yàq leer te fekk dëgg-dëgg lañ lay wax ci moom yow ci ay dégg nii rek nga ko def loolu bokk na ci li nga xam ne gaaw naa yóbbu ni sa bi beneen bi mooy ci li nga xam ne mën naa indi jàmm mooy ñu wattandi ko lu ñu tuddee yi mooy la mooy li ñu tuddee fanatisme xam nga fanatisme mooy la mooy nit mun na ñàkk am fu mu baax waaye baax loolu baax ndax yonent bi daa waxoon ne man ta'assaba la man yonent yàlla moo xam ne bokk ko ci baax baax mooy lan xam ne kuréel bi mu bokk xataa bu ay mbuuti sax moom loola baax moom comme waaye kuréel ba mu bokk bu ko amee sax am baax moom loola da koy wëlbati ko def ko loolu mooy ak xam-xam man fi ma bokk waaye keneen fa mu bokk lu fa baax it man dinaa ko fas yéene ñaan yonent bi nag nee na loolu képp ku koy def bokk ko ci sama xel te loolu yaakaar naa bari na ci jaww ndax imam Shafii daf ko wax lu am solo daf ne woon ra'yi sawaabun yaxtamilu al-xata wa ra'yu gayri xata'un ne sama xalaat mooy li baax waaye mën naa nekk njuumte la xalaat keneen njuumte la waaye xalaatam sax mën naa baax mooy yow da ngaa am xalaat kon nangulul ñeneen ñi seen xalaat waaye xalaat bii laa am rek xalaat bii ku ko amewu yow baaxoo loolu nit koo xamante ni si day doxee ci xam-xam ak nit ñi moo tax sëriñ bu mag bi bi mu ñëwee moom daf ne Maalik Shafii Abu Hanifa Ahmad ñoom ñëpp def naa leen lay jiit a'immati fi fiqhi Maalikul Ali wa Shafii wal Hanafi wal Hanbali teewul na mu ne sama njaboot maa ngi leen dëkk ci mbirum maali ndax loolu question d' organisation mooy dafa bëgg mbooloo mu na nasew moo tax mu ne fa aleykum bil maali waaye nee na la Shaafi'i yoroon la Abu Hanifa yoroon la Ahmad yoroon la Maalik yoroon loolu lépp yàlla doon loolu la ko kon ñoom ñëpp sama njaboot la warasani fiqha imaami Maalik alayhi ridwaanu kariimin Maalik nafaxtani li kunta bil manaafi'i wa kunta li fiqha imaami Shaafi'i وجهتني منك مناقتي وحققتني فقه ابي حنيفه يا قائدا حميدا حميدا حققتني فقه امام احمد moo tax lépp luy ak parparloo sëriñ bi moom daf koo tegoon na la génn moo tax mbokk yi nit ki dafa war a am te fépp ko ixtilaaf mooy wuute na mag nit waaye du tee ñu ànd ñu ñaar wuute na mag nit waaye du tee ñu nekk ay laaj wuute na mag nit waaye du tee ñu moo jàngal imam ahmad ibn hanbal te ñoom ñaar bu ñu xoolee ci ay masala booy jàng téere fiqh yi bari na lu mu waaye imam dafa daan dugg ci njël yi waxtu yi nga xam ne yàlla dafay nangu ñaan muy ñaanal di ñaanal di ñaanal imam Shaafi'i ba doomam di ñëw ci moom gis ngay ñaanal di mooy kan mu ne ko Shaafi'i day rahimahullahu Shaafi'i kaana ka shamsi dunya wa kal aafiyati lin naas Shaafi'i moom day yàlla ko yàlla moom day daa meloon ni ki ab jant ci àdduna ci leer waaye daa meloon ki jàmm ak biir ki yaram ci te moom moom moo ko jàngal waaye amul lu mu lu bari ci ay masal imam Malik moo imam Shaafi'i ku xam mazhab Malik ak mazhab Shaafi'i xam ne am na lu wuute ci masala ci lu waaye teewul imam Shafii i doon wax ne ida dukira al asaru fa maaliku nag bu ñu tuddee xam-xamu xadis xamal ne imam Maalik moo cay biddiw moom kenn la kon ñooñu dañoo ñàkkul ak xajal moo tax sëriñ bu mag bi doon na wax ci majmuwa bi ne nee na wuute xam-xam yi loola bàyyil xel ne xam-xam ak xam nee na rek am njàngale akum njàngale waaye nee na warut a jur noonu ak kañaana daal di wax ne seen soppante ak seen bëggante la nee na loolu mooy dundal sariya Muhammad sallallahu alayhi wa kon sëriñ bi moom li ñu tuddee am wuute moom moom da koo teeloon a bàyyi xel da koo teeloon a nangu sëriñ bi moo tax ñi daan jëflanteel ñëpp muy jëflanteeg ñoom lañ seeree ci moom bu kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax beneen bi ci nga xam ne jàpp naa ne mën naa indi jàmm mooy ñu tuddee jéggale mbokk yi mbokk yi nit ki saa yoo xam ne danaa lu ma def damay fay foofa jàmmul baax nit ki il faut am lu ñu koo xam ne da nekkoon daaw daaw jéeg daawaati jéeg lépp loo koy def ci bi jàpp ko te xaar bi sàngam la ñu damay fay wala nit koo xam ne bu amee nit jafe-jafe da koy dëpp yow de boo ma xamoon loolu bu ci man xanaa ko ma diw sàngal te fekk yow mi wax ko daal ndax ñun ñëpp ay doomu aadama ñoo bokk fu ñuy juddoo ñoo bokk fu ñuy mujj nit ki daa war di jéggal ak di jëllal sëriñ boobu yàlla suñu borom day wax bu baax bu la nit defee lu ñaaw fexeel ba fa yem lu rafet nee gis nga nit booy def lu bon di la def lu ñaaw da di ko fayee lu rafet maanaam xoolal rek nit bu la dee ŋàññi di la wax lu bon léeg nga jël sa alal nga yëkkati junni wala ñaari junni daal di ak ah, demal defal lu bëgg sax léeg-léeg nga bàyyi ba lépp dal nga yëkkati ay saabu ceeb wala nangam dem yóbbu ko ci kër gis nga moom moom loolu lu bon day mujj mooy wël bu ci bois di la waxal lu baax loolu nag ñi ko man bëri nit wax la lu ñaaw nga fayee ko loolu yàlla nee na ak mucc ak borom kër du ko wala tastawi xasan wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaaha illa alladina sabaru wa ma yulaqaaha illa zu azim moo tax sëriñ bu mag bi moo koy xoolal fi mu jaar Tuubaa sëriñ bi fanweeri at ak ñett fanweeri at ak ñett yëpp ci loxo Tuubaa jàppal ne quatre-vingt-quinze ba mille neuf cent vingt-sept ba ni muy génne àdduna ci njaaree ñu indi ko fii ci Touba sëriñ bu mag bi jëmbu ko te Touba mooy barab bi ko noonu bëgg ci kaw bay waxal boppam ne ilaahi ilaa Touba ya xutni wa salliman wa jubbi dinaalin sabwa wa tuubi Touba nawaytu huna rujaa li Touba bi isnihi wa awdaxtuhu isni wa awdaxtuhu alqalb على يسوره بفرض وسنن عندهما ويكون دار السلام وعند دار زبنه له سرورية في دار السلام وفي الكوبا وفي الكوبا بذكر الحميد من الأخبار tubaab bi musu koo may ngir bi ñëw Touba ak mboolem di sëriñ bi jot ci ay napp ci Gabon ak ca Thiéyène ba ci niñ koy defee résidence surveillée ci Diourbel mu nekk Mauritanie fanweeri at ak ñett waaye xoolal sëriñ bi nan la wax ànd ak loolu ko doon teg

naka noonu digganteem ak sëriñ bi doonte sëriñ bi mu sax jamono di wutal moom ci li ñu tuddee bokkuñu génération moom sëñ Cheikh ay defar moom la bokkal génération ci téere bu ñu tuddee euh, tanbi wal awliya ala istihaalati waqiya fil baari yaqsatan wa mana yooyu ay mbir la yoo xam ne bu ñu xoolee lépp nii daanaka ma tëb téere daal lenn lu ci nekk dañ koy tënk indi ko bu ko defee ñu am ci benn idée xam ne jamono bi noonu la demee mooy yàlla sant nañu ñu doxal ko naka noonu sëriñ bu mag ci wax na naka lañ war a mën a def ngir jaamu yàlla naka noonu bi ko waxee dox na ko ak njabootam dox na ko ñim seqaloon réew mi dimbale ko ci loolu ngir mën a am ngir jaamu ji mën a am donte am na yenn ñu daan xew ci diggante taalibe yi yooyu waaye yooyu yëpp ñoom danañ xam bu koy diggante ba jàmm daal di si kon yàlla ñu ngi yàlla moom moo fayal kon moom yaakaar naa borom jotaay bi du nuyu wala du ma àndal day ko ñaanal suñu borom sàmm bu baax di leen tuddee lépp dëkk bi ñu xam ne suñu borom la lépp dëkk bi ñu xam ne fi ñun la suñu borom la ñu jégalu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh